gala arts martiaux bu regroupé ay école de combat yu bari ci département de Mbacké si jiitalu organisateur bii di Modou Sall Nayler di président club Baye Fall gi de nee nañ ko nag teewaayu autorité yu bari yi yu si mel ni inspecteur régional des sports inspecteur département de Mbacké des sports ñoom jàpp na lu ni kat organisation yu ni mel yu am solo la si dunduk arts martiaux rawat na nag bii ñu amal yu ni gisee kawe na seen jortu dañoo ne euh, peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ci mbagg yi xale yi dañoo bëgg ku leen taxaw dañoo bëgg ku leen taxaw parce que ñi ngay gis ñëpp c'est des internationaux c'est des nationaux dañuy participer ci ay compétitions te ku te ku xam parce compétition yi dañuy dañu leen di def ci région yu bari ci Sénégal. gala de taekwondo gala des arts martiaux bi nga xam dañ ko organisé promoteur bi di Modou Fall Neyrer. j'ai été très satisfait bi ma ñëwee daal ma gisee organisation bi lu ma ça ça m'a surpris parce que pratiquement foog moo lay toll gis naa ne c'est une organisation engouement la am. ñi fa teewoon doon ay yi bàyyi ko si kuréel yu tàkku muy politique di wàllu développement ak lu mën a doon ñoom daal bi ñu yëkkatee kàddu gis nañu ni li ñu gis séduire na leen si yiw ak it yar. arts martiaux dafa méngoo ak diine da ngay sol yëre bu jot ba tabaarakalla mu nekk école de combat waaye mu nekk école lu jaadu nafs waaye mu nekk école boo xam ne amul xeex amul xuloo xanaa ndaw ñëpp encore une fois ndaw ñi gën a yokk sax nu ñu demee ci saal yi parce que li ma fa gis tey daal doy na dama bëgg muy góor muy jigéen ñu dem pratiquer ko parce que njariñ dong laa ci gis yar dong laa fi gis lu méngoog dëkk bi dong laa fi gis. seen comportement dafay exemplaire ci ci par rapport ak yeneen nit yi loolu moom ci li ñu gën a motiver ba tax ñoom lépp lu ñu nekk bu ñu ci waxee dañuy am fierté ñëw ci ndax tey jii dañu bàyyi lu bari pour mën a teew ci mais nag li ko gën a motiver moom mooy Sall nay leer ko quoi Sall moom am nga c'est c'est de parti en Euh, lépp lu ñu nekk ñoo ko ànd quoi. Euh, da ngay am maîtrise de soi da am maîtrise de soi te boo ko dee def tamit maanaam benn discipline dana nekk ci yow bi nga xamante ni foo man di nekk rek jàmm nga fa war a mën a indi. waaw comme li ñuy wax rek je serai où que la porte de la paix et de la euh, de justice. am solo lool foo ko takk weesu na ko moo waral kilifa yu bari ñëw fi teew fi ànd ak ak ak Sall ci manifestation bu am solo bi nga xam ne moom lay def. wane armation ñàkkul mu am ay problème si Touba moo tax acteurs yi ñoom ñu ngi yëkkati kàddu bëgg nag ñu jàppale leen si ay local yu ñuy mën a yëngoo. te euh, bokk na li nga xam ne moom suñuy suñuy jafe-jafe mooy ay lieux lieux yoo xam ne dina dina dina dina méngoo ak lieu bu war a defee armation lieu bu yaatu boo xam ne euh, dina mën a dina mën a mën a mën a ak normes yi nga xam ne loolu la saal tey ko di di di laaj. organisateur bii di Modou Sall nay leex moom nag jaajëfal na ñëpp ñoo xamante ñooy ay partenaire am gis ni kat yu ni mel dinay continuer di am ndaxte doon na nag sport bu méngoog dëkk bi waaye tamit di yar xale yi. muy bis bu mag ci wàllu armation ñu parrainé woon ko monsieur le ministre ba Diattara ak mboolem autorités yi nga xam ni ñëw nañ participer ci ku mel ni monsieur le maire Abdoulaye Ka yónnee na fi délégation. président conseil départemental yónnee na fi délégation honorable Mafari Ndiaye yónnee na fi délégation honorable Mohamed Cissé yónnee na fi délégation Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaynde faatma yónnee na fi délégation ak mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk autorité yi nga xam ni ñoo nekk ci localité bi ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp lii tam bu ngeen gisee ñu def ko dañuy wane ni Arts Martiaux yëmul rek Dakar wala mu yem Thiès wala mu yem Diourbel dañu war a xam ni Touba deuxième ville du Sénégal la mais li ñu fiy tere lépp sport bi nga xam ni moom moo nekk sport pratica moom walaabal na fi kenn tëriwu ko fi te ñu bàyyi xel ni itam aussi ay champion ñu ngi génn fii dem di combat di jëli ay médailles di ñibbi si fii ci commune Touba kon nag loolu dafay wane ni ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ nekk ci conseil municipal bi wala ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ te am lu ñu luyee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu sport loola waraloon tey ñu dajale mbooleem ñi nga xamante ni ñooy def armation ci dëkk bi sargal leen ci loo xam ne musul am sargal leen tatagal leen won leen ni leen da ngeen a bokk ci réew mi waaye sport daf leen war a delloo njukal kon ñi ngi sant participants yi nga xamante ni bii ñoom ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun muy ñi nga xam ni ñoom suñuy xarit lañ ñi nga xam ne suñuy am di jàmm ñi nga xamante ni bi itam lu ñu dégg ñu nekk ci ñu ñëw parce que lu ñuy nekk lu nekk intérêt commun ci la ñuy nekk mais nekkuñ ci ay intérêt personnel bu ngeen gisee lii ñu def ko dafay wane ni ndaw ñi dañoo war a gëm suñ bopp gëm suñ peuple gëm suñ nation xam ni ay intérêt personnel yóbbul kenn fenn lan moo mën a yóbbu ndaw fenn mooy gëm boppam gëm peuple am gëm nation xam ni xuloo ak xeex ak saaga jëmalewul réew kanam mu doon nag ndaje yu am solo si diggante njabootu arts martiaux initiateur bi nag ni am na satisfaction totale ndaxte ni mu déroulé si jàmm ak tamit combat yi nii mu rafetee doon ay spectacle yu am solo séduire ñu bari ñu fa nekkoon. deux